salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu Sen Sports 221 dañu koy tàmbaleeg Nicolas Jackson l'international sénégalais mi nga xam ne démb waxoon na ñu leen ne marqué na fukkeeli balam ak ñaar ak équipe bii di Chelsea football club jamono bi nag benn bit képp moo dox digganteem ak Didier Drogba bi nga xam ne premier saison bi nga xam ne def na ko Chelsea football club lu toll ci fukki bal la dal di dugal ci championnat Nicolas Jackson nag ci championnat am na ci lu toll ci bit maanaam juróom ci ay bal te dese na ko ay match yu sakkan yoo xam ne war na ko football ci kanamam voilà dese na fukki match ci championnat te xanaa fukki match yooyu day benn bit wala ñaar du ko ci të ngir mu war a mën a sax daaneel ki nga xam ne mooy Drogba ci première saison boo xam ne dal na koy am ak Chelsea football club te marqué woon ci lu toll ci fukki bal 35 millions d'euros nag la ñu ko jëndee woon foofu la ca Villarreal ñu bari doon ko critiqué ndax rate yi nga xam ne moo ngi koy rate jàpp na sax ne amul pour jouer ci équipe bu mel ni Chelsea waaye de gis nañu ne moom semaine yi moom ñëpp a ngi noppi di dégloo ndax kat li nga xam ne ma ngi koy wane amul lenn loo xam ne fi mu mën nañ ko ci teg ni baat ñetti match yoo xam ne daf koy tegle di marqué ay but voilà te lii nag bu fekkente ne wéy na du yàgg tuuti mu daaneel ki nga xam ne mooy DJ Drogba ci premier saison boo xam ne kon dal na koy am ak Chelsea Football Club. loo mooy loolu le ki nga xam ne nag mooy arbitre bi doon arbitre match bi doon dox diggante Valence ak Real Madrid voilà muy Gil Manzano xibaar ñu ngi xam ne kat. li nga xamante ne mooy commission technique bi nga xamante ne moo ëmb arbitre yi foofu la ci Espagne pare nañu ko tegaat beneen semaine boo xam ne dina ko toog te du arbitre xam nga bu seetloo depuis mbir mi xew ba léegi kenn gisul ko fenn foo xam ne dégg nga ma mu ngi àtte benn match waaye nag loolu nee nañu mën nañu ko prolonger yokkaat ci beneen semaine boo xamante ni maanaam ci ay daan lay nekk ba léegi boo xam ne dafay aju rek ci daan yi nga xam ne kon ñu ngi koy teg ci kawam gannaaw njumte yu rëy yoo xam ne dal na koy amal ci jogante googule bay sukkandakoo ci taskatu xibaar yi weekend bi daal ñu ngi séntu ne du a bokk ci arbitre yi nga xamante ne nga maam dinañu bokk ci li nga xam ne muy La Liga loolu yëpp amaan nañ ci daal di dellusiwaat ki nga xam ne mooy Borja Mayoral bi nga xam ne attaquant bu Xetafe la nga xam ne mu ngi doon def saison bu am solo ak équipe boobule dafa am blessure boo xamante ni day bu doy waar la te nag li nga xamante ni mooy opération bi nga xam ne am na ko danañu ñeenti weer la war a toog balaa muy dellu si ñeenti weer nag képp koo xam ne war nga ko xaar mooy sab saison jeex na te nee nañu nag saison ren bile day moo doon saison bi gën a rëy ci carrière am maanaam bi mu commencé football ak léegi ndax lu toll ci fukki bal ak juróom dal dina koy marqué ci équipe boobu nga xam ne mooy Xetafe nga xam ne amul doole mu ngi doon def saison bu am solo waaye blessure bi daal dal dina gàllankoor aw yoonam ndax kat bu ñu sukkandakoo ci taskati xibaar yi war na toog ab diir bu toll ci ñeenti weer balaa muy dal di dellu si waat te moom sax bu ñuy seetloo mooy attaquant bi ëpp lu mu marqué ay bit ci li nga xam ne mooy championnat gannaaw ki nga xam ne mooy Jude Bellingham waroon a xëccoog moom li nga xam bi xëj na waaye daal fi mu ne nii ay kon Jude Bellingham libre na ci yoonam gannaaw gaañu gaañ bi nga di Mayoral dal dina koy am Ligue 1 française dellu waat nañ ca la ñu nekkoon mooy championnat bi daal ci li nga xam ne mooy weer wi ñu nekk nga xam ne weeru koor la amul fenn foo xam ne rek dégg nga maam jox nañ leen digal ngeen ñu daal di arrêté match yi may joueurs yi nga xamante ne dégg nga maam dañoo war ñu dog seen koor nañu ko defee woon daaw foofu la koy tegaat ni ki ren jile match yi day continuer seen yoon nekkul ci li nga xam ne mooy koor kuy football nga football ku footballul nga defi leneen waaye daal nga xam ne mooy arrêté gi ñuy arrêté match yi comme ni ngeen ko gisee ci yenn championnat yi rawatina foofu ci Angleterre foofu la ci championnat bu dégg France moom amu fa fédération bi ñoo dal di jël dogal bi nu mel Al Nassr moom dañ leen éliminé ci li nga xam ne moo ay ci Ligue des champions asiatique gannaaw bi nga xamee ne ni ki démb ñoom ñoo doon joué seen diggante ak Al Ain match match boo xam ne sax day kii di Sadio Mané l'international sénégalais titulaire la ca amal na ca sax ab passe décisif moom Sadio Mané waaye de équipe am dañoo mujjee toog donte ne ñoom ñoo gagné li nga xam ne mooy match bi voilà waaye nag ñu dem ci li nga xam ne mooy tiro bi bu ngeen fàttale ko match ale ba dañu leen dooroon 1 nag ñoom góorgóorlu woon nañu ba dégg nga maam gagné lu toll ci 4 à 3 waaye daal bi ñu demee ci tiro fa la lépp dal di yàqoo gannaaw bi nga xamee ne sax de ndoorteelu match démb bi juróon na njàqare lool ci ñoom ndax dañ ne prip ñii di waa Al dal di dugal ñaari bal ci dara voilà waaye nag ñoom ñuy góorgóorlu ba dal di dellusiwaat ci match bi ndax kat laataa ñuy dem ci mi bi dugal nañu benn bi ñu dellu siwaate ñu dal di dugalaat beneen ci kaw loolu la nag dégg nga maam ki nga xamante ne mooy Alex Telles dal di dugal beneen bit voilà loolu nag dal di leen may ñu am ñetti bal ci benn wala ñetti bal ci ñaar ñetti bal ci ñaar yooyu la nag di nga maam comme dañ leen doron 1-0 ci aller ba ñu daal di dem ci prolongation yi biñu demee ci prolongation yi itam daanaka quelques minutes rek lañu dawal ñoom wa al ayn dugalaat beneen bit kon ñii di waa al nasr nekkoon ci yoonu toog cristiano ronaldo daal di ñëw égaliser ci 118e minute mën nañu wax bi ñaari simili képp desee ci match bi cristiano ronaldo daal di marqué bit bi nga xam ne moo leen yóbbu ca penalty ya. waaye daal penalty ya fa lépp daal di yàqoo ndax kat ñoom al nasr benn bit képp la ñu daal di dugal ci li nga tiro bit yooyu le kon ñoom dalde dinañuy toog ci li nga xam ne ligue des champion kon mu dese leen xañ na foofu la ca Saudi muy Saudi Pro League ñi nga xam ne nag ñoo di waa Al Hilal dinañ ñoom itam seen diggante ak Al Ittihad loolu itam aju ci wàllum quart de retour yi boobu moom tey lay doon Kalidou Koulibaly ki àndandoom ñoo gañu match aller ba retour bi kon tey ji la koy amal voilà gannaaw bi nga xamee ne kat ñoo ngi war a janoo ak ku ci mel ni ñoom dégg nga maam Fabinho Karim Benzema voilà équipe ñoom Ngolo a Manchester City seen gardien bi nga Ederson xam ngeen ne dafa amoon blessure keroog match bi doon am ak Liverpool ñeenti semaine nak la ñu wax ne dana ko toog balaa muy dellu si ñett jàpp ñeenti semaine bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi voilà loolu nag nee dina tax ba match bi nga xam ñu war nañu ko am ak Arsenal moom du ci dal di bokk mu nekk match bu am solo nag ndax bu ko Arsenal jamono bii ñuy wax ak yéen moo nekk ci bopp classement bi ci English Premier League te Man nag dina ko fa bëgg a jëlee waaye du yomb benn yoon ndax Arsenal ba ñu xamoon ak biiru benn beneen taxawaay lañu am ren jile voilà te seen taxawaay du lenn lu dul gagné li nga xam ne mooy championnat daaw góorgóorlu nañu ba qualifié ci Ligue des champions ren ji nag beneen objectif lañu am te mooy gagné championnat bi nga xam ne ba ñu koy gëj a booba mag ñaa ngi da gone yàgg na lool voilà kon loolu mooy li nga xam ne mooy match bu am solo bi war a dox diggante Arsenal ak ci weekend bi ñu dëkkmal Ederson dina ko wutee gannaaw blessure bi nga xam ne dal dina koy am waaye kon rek ñu ngi koy natt ci match bi ñu war a am seen diggante Porto ci Ligue des Champions xëy na gravul voilà mu nekk nag élément bu am solo pour équipe équipe boobule di Arsenal ndax kat moom mën nañu wax ne ci côté boobu moom ma ngi koy gérer bu baax a baax mën na daw day dugal lépp lay def Martinelli gaañu gaañu bi mu am kon xamuñu ñaata temps la koy toog waaye bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar bii di di mooy amaana amaana moo wuutee match bi ñu war a am seen digganteeg FC Porto te ay ci wàllum Ligue des Champions moo ngi noonu gars yi fi gënoon fees di leen wax ngeen way topp Sen Sports